sëriñ bi dañoo sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey. kuréel gi benn bànqaas la ci Safinatoul Aman mën nañu wax ne mooy banqaas bi gën a dox ndax liñ doon ñaan mooy am kuréel gu dëgër goo xam ne mboolem tund la bàyyi gépp ñoo koy séq mu nekk kuréel goo xam ne bu fa xalifa général der Mouride doon ñëw. mu mën a toog jàngal ko ba fekk mu ñibbi te ne am nañ ko bu wér ndax ku déglu njàng mi xam ne mën nañoo fanaane guddi te lañuy jàng yëpp ku xamam njàng xam ne fu wér lañ ko teg njàng mi set na leer na tey yaru na kon ñoo leen di jëfal bu baax di leen gën a soññu ngeen gën a takk seen laxasaay gën a góorgóorlu niñ koy faral di waxe jamono bu ne kuréel gi bu liggéey bi doon oto buy daw kuréel gi mooy motoor bi koy dawal kon yéen ñi nga xam ne yéenay waa kuréel gi ñaari paar ngeen bokk ci liggéey bi ñoo leen di jaajëfal nag bu baax a baax di leen gën a soññ di wax ne képp koo xam ne kuréel kat la dëkk tund boor googu ñi ngi lay woo ci liggéey bi bu baax ndax amuñu leneen lu dul loolu mënuñoo am lenn lu ëpp làmbaay gën jóge dëkk bu ngeen fi dégg mu am wàccuwaay wu rëy ndaw ña fa nekk rek ñoo ko def kon ñoo ngi profité di woo képp koo xam ne ab kuréel kat nga dëkku tund làmbaay nekk ci dëkk bi ñu ngi lay woo ci liggéey bi su loolu weesoo ñu ngi jaajëfal bu baax waa saxaadu su daaree ni ci seen taxawaay ci Safinatoul Amaan ndax tey jii bu doon lim dëkk yi ëpp ay membre ci liggéey bi Tuguj mooy doon première loolu kon positif la biñ tàmbalee tournée bi it liñ ci jublu woon dëkk mooy dëkk yi nga xam ne am nañ ay daayira ne ci biir dëkk bi te du ñëw ci fédération bi ñuy dem di leen xamal liggéey bi ngir ñu mën a ñëw bokk ci waaye waa Tuguj indi gi ñu daayira bi fii loolu warulu ko dañ ko fee indi ngir doole leen jukkal ngir doon leen a sant doon leen a tàllal loxo nag bu baax a baax ndax li gën a jafe la waa Tuguñ am mooy ndaw ñoo xam ne ñëpp danoo maase dégmal sëriñ bi dem nañ fa gis nañ seen taxawaay bu baax ca dëkk ba mbooloo mi nga xam ne nag ñoo dëkk Tuguñ te ne ci dëkk bi fii ñun dañoo jàpp ne lu néew lañ ci gis ci daayira bi moo tax ñoo ngi soññu waa Tuguj jëpp di leen tàllal loxo di leen xamal ne membre yi dëkk Tuguj te nekk ci liggéey bi ñooñu dong soxlawul leen Tuguj jëpp lañ soxla ndax liggéey bi liggéey bu doomi làmbaay yëpp la kon ñoo ngi tàllal loxo waa Tuguj bu baax di leen wax ne ni waa kuréel gi jaayante ñëw bokk ci kuréel gi bokk ci liggéey bi ñu ngi ciy woo waa Tuguj jëpp ñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi woo ñëpp ci liggéey bi ñu ñëw tàbbi ci xam naa dañuy wëyal liggéey bi yeneen kàddu yi des incha allah ñu jàllale ko bu ko defee sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene